Ahmed Ndiaye jirë ngeen jëf ñun ñëpp au garde à vous ñu dugg biir gendarmerie national ngir wax ci gendarme yi yëral xët mu njëkk Le Quotidien mi ngi ñuy wax lenn ci li waral général san Baptiste Tine mi jiite woon gendarmerie national ñu wàccee ko benn ca moo di ba ñu koy wàccee booba fekkul mu jeexal ne dese woon na ko ñetti weer ngir mu dem retraite li ko tax a tëb journal bi nañu ay dégâts collatéral la ñax goo moo lakk lakkaale gu tooy ne li wàccee capitaine Touré moo ko yóbbaale te du loolee rek ne ni gendarme yi taxawee ci fitna ji fi woon ci weeru mars bi ñu bëggee téye Ousmane Sonko looleet bokk na ci li teeree ci ay loxom journal tribune xëy di ko dëggal ba bindal ñu ne sagara ngay xeeñ ba léegi ci biir gendarmerie nationale yéene kaay bi xëy samp ñetti laaj ci xëtamu njëkk benn moo di lan moo tax ñu tëbal général Tine ci jamono ji nga xam ne ñetti weer rek ko dese woon ngir mu dem retraite ñaareel ba di ak wàccee moom général Tine yan rapport la am ak radiation bu capitaine Touré mbir meneen mu journal bi seetlu ci yëf yi moo di moom général Jean Baptiste Tine mooy ñaareelu général bi ñu wàccee te seen dem retraite jotul jottali leen ma les écoles mi xëy jote ji ca Casamance ba dizaine ya fa nekk la ñu journal bi xamal ci xët mu njëkk ne yéenekaay bi travaux yi jëm ci route nationale numéro bi ak yi jëm ci boucle des Calounaye te ñu fuqartee ko ci entreprise bi di Ecotra jox ko ay Sinwaa moom la jeunes Casamance ne duñu ko nangu bëgguñoo gisi Sinwaa ca Casamance nañu jël liggéey bi delloo ko Ecotra mi ko mas di doxal ndax ñoom dara jaralu leen di liggéey ak Sinwaa Sinwaa yi respecté leen joxuñu leen cër jàppale leen dañu fay ñëw liggéey seenub xaalis ci seen kaw dem seen yoon CRSG moo ko moom moom mi ñëppi wër di Youssou Ndour xëy na feeñ ci l'observateur Youssou Ndour moo amee xët mu njëkk journal bi ndaje mi ñu naan forum de Dakar ci la xëy di waxtaan ak Aïcha Fall bu yéenekaay bi forum de Dakar suba ci talaata ji ci lay tàmbali vivre en ville en 2020 mooy ponk bi maanaam thème bi Youssou Ndour mi président fondateur Africa Innovation gi organiser xew-xew bi mi ngi xamle ne ñoo ngi ciy séntu lu mat ñeenti téeméer jàpp juróomi téeméeri kilifa war a bàyyeekoo fu nekk ci ne bari na yoo xam ne dara du ko gën rawatina ci Sénégal njiitu Sénégal di président Macky Sall ci la Sénégal ci réew mi quotidien ak ci Source A dooree ko ak journal L'As ci kaw tournée économique bi nañu ci responsable yi politique yi wane seen bopp ci nganug Macky Sall gi ca Daara Jolof ràññee nañu ca ndaw sii di honorable député Annie Mbeng tapis rouge la lalal Macky Sall moom la ko teyroo Source A nañu ca commune bu Daara Jolof ministre yi di Aly Saleh Diop Samba Ndiobène Ka ak honorable amul député Aniye Mbeng ak docteur Moussa Sow def nañu mobilisation bu amul fenn waaye Macky Sall def na waa Daara Jolof lu amul fenn da leen a fooyooyal tuutal leen ñàkk leen fayda ndax la mobilisation ba di rëy rëy li mbooloo mi di bari bari Macky Sall ba mu tolloo ca Daara Jolof vif la fa rombe ak i watam taxawu fa sax ne leen dee leen ñu jullee leen Aly Ngouille Ndiaye daal ak Sidel Sow ak consort ñoom la doon joobee ca Linguère réew mi quotidien nañu moom jiitu mi Macky Sall tournée économique yi mu nekk risque léegi ndax am na ku ca ñàkk bakkanam ca Ranérou moom Macky Sall it ba muy tournée ba yegg ca Touba dañ ko fa doon yuuxoo ñu loolee moom farandoy Ousmane Sonko yi la ñoo doon yuuxoo Macky Sall ca Touba Tiwaawoon du neex a lijjanti ci élection locale yi déwén yi la Sénégal mi ngi ñuy wax ne am na ñeenti ponkal yu bokk ci Benno Bokk Yaakaar ya fa nekk Maguette la lañu tànn def ko seen candidat ngir mu jiitewaat mairie bu Malicounda dogal boobee ñoo ngi ko jël ci meeting bu ñu doon amal keroog samedi ca kër may sëgg ca Malicounda fu soriwul Malicounda di ca tubaab jalaaw libération xëy na di ñu fa wax mbir mu yéeme te doy waar mu fa xew keroog àjjuma ay wëyu di samba booy yor seeni ngànnaay ay jaasee paaka ñoo bàyyi ba guddi ñu dugg ca l'hôtel bii di Pierre de Lys neutraliser ñaari gardien ya fa ne woon yeew leen ba dugg ca l'hôtel ba roñ ko raxas ko ba mu yoon journal bi xam ne ci seen nañ ci ñoom 780 dix mille l'observateur dolli ñu ci ne du loolee rekk la samba bu yi jël ca l'hôtel ba jël nañu fa ay takkaay jël fa ay téléphone portable ak i effet personnel